man la Bàcc sal ñu gën ma xam Bàcc BKR borom yet bi wala Bàcc Silko kat nekk fii sama bergerie bergerie ñaani fii ci commune Kokat Dakar Sénégal euh, ci situation bi nga xam ne moom laa bëgg a ñëw ak yéen mu nekk situation bu doy waar xew-xew la ci biir réew mi xëy na mu ngi commencé gars yi ñu ngi koy commencé dégg ndànk-ndànk mais dafa des a gum mooy li nga xam ne xew na fële fi nga xam ne falaa fekkee baax falaa juddoo mooy diwaanu Malem Niani ndaxte euh, dafa am village boo xam ne mu ngi deux kilomètres de Malem Niani ñu naan ko Samba Diary Samba Diary boobu dafa am ñoo xam ne nag boo yegg euh, seeni béy dañoo réer ak i seeni xar ñu leen di wër ci après information yi nga xam ne njëkkoon naa ci jot am na ñu ne waadawaad yi ñoom la seeni béy réer ak i seeni xar waa dawaadi boo waxee dawaadi boo yeggee malem ñaani sa góos ngay duggee ci ngay dem ay dawaadi ay wéri ngara ay kuccëg gay di ay malem ba dawaadi boobu nag bi ñuy wër seeni béy yi bi ñu demee ba malem ñaani seen xel am na ci information yi nga xam ne jotoon naa ci jot am na ñu ne dañ dañoo am benn nouvelle boo xam ne dañoo ne est-ce que duñ dem Samba Diaré am na koo xam ne aussi comme que nit ñi aussi dañuy wax am na koo xam ne aussi nee na dañoo gis ñuy indi ndawal foofu di jaay ñu dem siñaale waa brigade xawma ma waa gendarme bu leen fàtte ne euh, Malem ñaani ak Samba Diar toujours nee naa leen deux kilomètres ba trois la léegi nag bi ñu àndee ak population Malem Niani ak gendarme yi bi ñu demee ba Samba Diary Samba Diary nag village la boo xam ne mu ngi toll quinze ba bu bëree ba bëri vingt maison du ko weesu eh, ñaar fukki kër du ko weesu Samba Diary boobu bi ñu fa demee li gën a doy waat gis ngeen ko ci vidéo yi euh, dëgg naa bi ñu demee ñu ne leen seeni béy la ñuy wër ak seeni xari yi yi ñu ne du ñu dugg ci kër yi mais comme que dañoo àndoon ak euh, yoon ñu fexee nag xam naa yoon bi ñu leen autorisé ñu dugg ci kër yi bi ñu duggee ci lañ commencé fekk ndekete gaa yi commencé woon nañu rey xar yi ak bëy yi am na yi ñu rey fees ba pare dégg naa ñu def leen ci ay euh, saak commencé woon leen jàllale ci yeneen dëkk dëkkaan yi di leen jaay am na ñu ne am na ñoo xam ne aussi dañ leen rey gis ngeen leen ci vidéo bi jotuñ leen fees mais li gën a doy waar ñi nga xam ne rey nañ leen mooy xar yi ak béy yi ñii ci rey yu bari ñii ci biir néeg yi lañ leen fekk ñii ci biir wanog yi lañ fekk ñu rey leen def dañ dañ leen doon denc ñii ñu nëbb leen ci biir ñax yi def leen ci ay saako dégg naa ñii ñii jot a fees ñu daggate leen def ci ay saako ñi aussi ay paan am na ñu doon rawale di jaay yi gars yi ñëwee nag ñu commencé ñeneen ñu commencé. xamee seen i béy ak seen i xar non seulement que waa dawaadi ñi nga xam ne ñoo réerle seen i xar ak seen i mais waa Malem ñaani ci seen bopp ñi nga xam ne ñu ngi dëkk Malem ñu bëri bi ñu demee jot nañ fa xamee seen jur yi nga xam ne réer nañ leen ay weer walla at jot nañ xamee seeni i jur foofu ñu ne ah dangay ngay jékki rek kenn na nekk kii de sama jur la kii sama béy la sama xaraa ngi ni sama béyaa ngi nii euh, situation bi di gën a compliqué léegi gars yi commencé vidéo di dugal ci réseaux sociaux yi ñun dañoo am groupe boo xam ne mooy groupe dëkk bi groupe ña Malem ñaa ñu naan ko ñaani groupe ñaani boobu barki démb ci guddi veille korité bi ci laa commencé am image yi ma téléphoné bi ma téléphoné sama benn cousin jox ma information bi euh, mu nekk situation boo xam ne dafa doy waar tey bii nag may waxtaan ak yéen jamono bii tey dañoo xëy waa benn euh, kuréel bi nekk Tamba région de Tamba ak département de Koupentoum la ah euh, seen yëpp ñu naan filu fen na faa xawma li nga xam ne dañoo bokk lépp loo xam ne daf la réer benn kuréel ñu ñëw ñu ne dañ fay dem dañuy dem Samba Diagne biñ ñëwee nag ñu ànd fekk délégation village yi ci département Koupentoum yëpp wàcc bi département Koupentoum yëpp wàccee foofu village yi wër Malem Niani Koupentoum yëpp ñu dem fa moom ful boobu ngeen di gis bi ñu fa demee nag tey am ñoo xam ne aussi dégg naa dañu jógee ba Goudiri li gën a doy te mu gën a bi fa mbooloo bi li mu bëri bari waa ji nee na ma li fi nekk ëpp na mille personnes ci ay mbooloo am ñii naan nañ taal dëkk bi ñii naan nañ massacrer dëkk bi ñii naan leen déedéet kenn du fajal sa bopp effectivement man bi ma groupe famille groupe dëkk bi nee naa leen bu kenn mas fajal sa bopp yoon naa ngi fi réew yoon lañ nekk non seulement que vol bétail dafa doy waar dafa métti mais situation bi waa région de Tambacounda di dund rawatina waa ñaani muy ñaani Kalunga dugg ak ñaani wulli